champion yi xamante ne tey nañ seet suñu pour euh, joxe sen contribution ci xex bi xamantene xex bu am solo la ñukoy xex Covid 19. Monsieur le Président maa ngi lay remercier bu baax ci ce tour mais remercier tous les champions. and ngeen seen ak mak yahya Diop Yekini and ak le roi des arènes modulo Kulim djum champion yëpp ñew nañ tay mais xam ngeen ne li ngeen def tey Sénégal danañ ko yëg bu baax a baax a baax parce que ku leen génn Sénégal li si des du si bëri wan gars yi maa ngi leen di remercier au nom du président de la République son excellence le président Macky Sall di rafetlu ki ngeen àndal muy monsieur le ministre Matar Ba mënoon na leen wax dem leen ma woo ministre bi rek ngeen fekk ko fa mais dafa ànd ak yéen ba fii loolu dafa comprendre mission mais ku ko xam-xam ne noonu la mel Bukan ngeen mana ko mën a defal de dana ku nek ci yeen champion nga am ñu nek sa gannaaw nga jël cadeau wax ak effectivement ñi xamantene ñom ñolay supporter pour que mesure yi ñu leen di denk ñu respecter lolu mom mom lañ wax ay capsule su ko defé man ngon bu jël rek dana genn kenn ci yeen mu wax ak sénégalais